njort ne dafa bëgg a confisquer li nga xamante ne moo di pouvoir bi yër bi la yëgle taxawal nañu ko kay commission d'enquête parlementaire ginnaaw bi ñu invalider nag candidature bu Karim Meïssa Wade Sud Quotidien nag ne waa parti démocratique sénégalais la bëggoon jamono ji nag am nañu ko téeméer ak ñaar fukki député ñoom daat nañuy ànd ci vote bi nag ñaar fukk ak ñeent nag daal di voté contre groupe parlementaire bu yeewee askan wi daal di lànk nag ne du siège ci bi lee commission d'enquête Wade jamono ji kay ma ngay cëppi yi nag fi mu toll nii la xam ne rek bokk na ci élection moom kenn du ko amal fii ci réewu Sénégal te Karim Meïssa Wade bokk ci assemblée nationale nag buy dajalewaat moom la yëglekaay bi di enquête daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi ne PDS ak waa Benno Bokk Yaakaar def nañu dank jamono ji waa taxaw ak waa PUR ña ngay dal ci kaw waa parti démocratique sénégalais Seydou Diouf di ab député nag di xam ne ne ñu convoqué nag ci seen convocation boobee nag dinañu xool nag yan yoon la mën a tëral ngir mën a wéyal seenub liggéey laas yëglekaay ne assemblée nationale kay jamono ji nag ñoo ngi yi nga xam ne ñoo ne ca conseil constitutionnel ginnaaw bi ñu installé ab commission d'enquête parlementaire boo xam ne rek dafa jëm ci càmbar seenub liggéey le jour yi nag mi ngi xeeñ jamono ji ndax commission d'enquête bi nga xam ne rek daat nañ koy adopté ca péncum ndaw réew ma Karim Meïssa Wade nag ma ngay jubilé jamono ji xeex ba ca topp nag moom mooy ñu dàq élection yi Thierno Alassane Sall nag ni Benno Bokk Yaakaar ak waa PDS nag jamono ji coup d'état constitutionnel la ñuy waajal ci réew Sénégal ba tey moom Thierno Alassane Sall nag di xam ne ne dina amal ab plainte nag jëmale ko ci maam Diarra Fam ak ñi nga xam ne rek ñoo ko doon songu démb ci assemblée nationale solo yëglekaay des ba tey ci député yi nga xam ne rek tool nañ ci téeméer ak ñaar fukk daal di voté nag lu jëm ci création ab commission d'enquête parlementaire jëm na ci li ñu neenal nag candidature Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle yi nag lan moo waral nag majorité bu Benno Bokk Yaakaar yaakaar taxaw di jàppale nag waa parti démocratique sénégalais loolee ab laaj la bu yéenekaay bi daal di xëy samp lu jëm ci dàqu élection yi nag waa parti démocratique sénégalais moom la ñu bëgg jamono ji waaye nag waa yow moom daanaka dañoo taxaw lànk ne loolee nag du fi amee jokkalante bu saf sàpp nag doxoon démb ci diggante Thierno Alassane Sall ak waa parti démocratique sénégalais Walf Quotidien xëy dippee ko ab théâtre bu saf sàpp nag bu amoon te biir assemblée nationale législative bi nag jamono ji mooy waajal enquête ci kaw judiciaire bi yër leen bi jëm ci élection présidentielle yu février atum 2024 Vox Populi nag ma ngay dikkaat ci pëccëxoo gi nga xam ne rek mu ngi am jamono ji ginnaaw bi ñeenti fan rek desee ngir ñu daal di ubbi nag campagne électorale bi waa parti démocratique sénégalais nag am nañu seenub commission d'enquête parlementaire di wax nag jamono ji lu jëm ci dàq lii di élection présidentielle yi APR nag taxaw jamono ji di leen ca jàppale député yi Pastef ànduñu benn yoon ca lay xew ci bi ñuy laam-laamee lu jëm ci campagne boobee sax nag ngay lànkal liberté provisoire bi ñu doon sàkkul kii di Bassirou Diomaye Faye réew mi quotidien di xam le ni Maham Diallo moom daal dinay neenal nag càkkutee fub may liberté provisoire kii di Bassirou Diomaye fay ngir mu mën a battre campagne bés bi la jour daal di koy feelu ne Bassirou Diomaye Faye kay ci kaso bi la nar amalee campagne ci jamono joo xam ne rek observateur yi nag ña ngay xam ne ne bëgg nañu koo gis moom candidat bu ex Pastef Cheikh Tidiane Dièye jamono ji nag taxaw na ngir jàppale kii di Bassirou Diomaye fay ba noppi ne nguurug Sénégal nag li mu bëgg indi ci réew Sénégal ñëwee nag dina xam ne baaxul ci moom te baaxul ci askan wi moo waral nag mu fas yéenee battre campagne nag ngir fësal seenu projet l'observateur tey jii daa xëy def ab taxaw seetlu ci financement yi soxal campagne électorale bi mu ne jafe-jafe dëggantaan la nar a doon nag ci budget bi nga xam ne moom lañ ca fas yéenee dugal yër leen bi la yëglekaay jeexale yëglekaay ci libération ak la xew ca collège privé Planton ba nekk ca Ziguinchor ab élève bu nekk ca classe terminale ñu naan ko Andiaye moo daal di jël lañ